aussi concernant wàllu ak euh, yeew yi ndax kenn ci kilifa yi ñu yi doon waxtaan nanguwul bàyyi dara euh, comme saa ngeen mën a ngeen mën a juboo est-ce que mun ngeen confirmer ni cas bi nii la demee si on peut parler de cas comme ni ko gars yi di waxee léegi cas gis naa dañuy def sax image yu image yu image yu euh, nu mu tëdd def quoi. ah yérim demee. Ah, <laughs> kon kaa nii la demee. kon ñu ñu utiliser image boobu. non c'est-à-dire euh, mhm. mun a posé wu. Mhm. d'abord période bii. Mhm. processus électoral dafa am ay étapes. am calendrier am lu nekk jamonoom. kenn vérifié gul la régularité la régularité des listes yëgaguñu ci. Mhm. c'est vrai. régularité des listes c'est à c'est à 66 jours des élections 66 jours c'est exactement à partir du lundi. Mhm. article 179. lundi 17 précisément. alors léegi nag ñu xëy on fait fuiter des listes mais on fait fuiter des listes yoo xam ne ils sont pas yan département ñoo xam ñun man du département de Kaolack. Hmm. j'étais candidat à la candidature xaw ma ñun kenn xamul. am na ko yow ba léegi ndax xaw ma xaw ma xaw ma xaw hmm. ma xaw ma kenn xamul. Hmm. parce que les listes c'est le ministère de l'intérieur le ministère chargé des élections moo koy après moo koy arrêté publier ko. dans les coalitions les partis dafa mu ñu koy jox nag ñu ciy liggéey. joxante confiance xëy na am un projet. xam ne aussi quand dans une coalition de cette nature daa am yuy dina am yuy xew mën nga am mën ko mën na mën nga ñàkk mhm. am na sama beneen naataango dafa ma woone ma foo toll ci affaire yi ab bool kiiwul de nii ma ne ko discipline de parti ma ne ko dans cette coalition je suis de communication du PRP mhm. mais jour bu bu ñëwee ñu ne Déthié Fall dem na accord def lii ma jaar feneen bon dégg foofu coalition parti bi lay njëkk a bàyyi mhm. discipline man lu ñu ma teg man foofu lay tegu alors donc débat bi warul mun am beneen bi mooy que le président du groupe parlementaire moom ban groupe parlementaire. wa euh, PDS waaw bon PDS groupe parlementaire tudd noonu. waaw oh, oui non pas waaw moom dafa gedd premièrement il faut d'abord dafa am ñu mun a témoigner. Hmm. en droit même en islam dafa am ñu mun a témoigner. jigéen bu fay. Hmm. mënoo ko ne ko lu xew kër ga nga fay. du dëgg ah. pourquoi pas. ah lu xew. ah nga ah lu tax mu fay ko ah awa ah, yooyu dem foog non lu xew ca kër ga si on veut savoir. waaw amoo ci amoo ci droit manqué et de comprendre. Mm. moom dafa gedd parce que investir duñ ko département Mbacké. Mm. def nañ ko national. ah national nationale lañ ko liste nationale lañ wax ne fa nañ ko def. loolu moom moo ko wax parce que li si gis naa benn ay benn PDF bu ñu photo mm. encore rien n'est officiel. rien n'est censé être officiel donc est-ce qu'on peut s'appuyer sur ça ba lii mooy les faits donc maintenant si justement la liste Yewwi à Dakar ne respecte par la parité la parité condition de rejet la loolu il faut loolu ñun xam nañ ko Déthié Fall xam na ko. Mhm. fajar gi ma gis affaire boobu Fat Bintou Mbodj point moom moo woo secrétaire élu à la ville de Dakar. moo ne docteur mais suñu li suñu liste Dakar bi ma woo Déthié mais Déthié dafa ma ne mais oh, oh yow yow tu nous ñun ñu def lii bi li mu wax noonu ne la la la liste que nous avons déposée c'est pas ça. Hmm. mais li loolu la foofu boobu si ay ay sept heures huit heures lañ nekk. Hmm. boobu kii waxagul ñeneen ñi waxagul. Barthélemy demagul ministère de l' intérieur. Mhm. mais xam nga ci diggante bi it bi ñuy door émission bi maa ngi wax Saliou Sarr. bëggoon nañ ko invité ndax bi ñu xëyee tamit ci yéenekaay yi il faut le dire on a vu que finalement moom la ñu neen moom moo déposé list bi. et que finalement euh, bu dee am na lu am ak moom la am on a même donné des explications. bon, finalement bon explication en tout cas c'est c'est c'est extrêmement. Déthié Fall kana kana àndoon ak moom pour déposer liste. non c'est toute une équipe non ils étaient une équipe gis nga ko sax bi ñu génnee. justement moo tax ma ne kan ak kan lañu. alors non gis nga ko bi ñu bi ñu gis nga gis nga leen. bi ñu génnee on a vu Diomaye Faye on a vu. donc ils étaient euh, je pense ils étaient plusieurs. voilà ils sont plusieurs parce que parce que effectivement ci la bokkoon avec les avec les gens de Wallu parce mhm. que. les départements gars yi dañu liggéey di travailler directement avec Wallu. Mhm. parce que comment on a travaillé dans cette coalition. pour que pour ñu tiital pale bi dañu leen tiital. Hmm. coow li ci dëkk bi parce que fii ñiy coow même ñiy def post c'est les gens de Benno ce qu'on est en train de faire dans ce pays parce que dans ce pays amul benn élection législative wax ne mën nga ko génnee. Hmm. man gisuma ko. j'ai fait tellement fait de recherche sur les questions électorales ci laa bind sama thèse. Hmm. maanaam pour élection législative ne opposition gagne na cinq départements man gisuma ko trois départements lañu am bii passé nii Kédougou Salémata ak Mbacké. bi biñ naroon gagné fii à Dakar avec le manco gars yi am na nuñ ko lijjante ak xaw ma lan am nu mu tëdd 5000 ak seen affaire yooyu. c'est bii élection yi gars yi dañoo décider fekki le pouvoir dans sa logique. Hmm. bi mu wàññee déjà la liste nationale daa jël liste nationale wàññi ko. 60 la woon ñu def ko 53 non seulement le quotient électoral day métti pour nga am benn député jamono di day cher léegi nag mu jël 112 yëpp yóbbu ko majoritaire. tout en sachant qu'avec 30 pour cent mën nga nekk majoritaire à l' assemblée nationale. gaa ñi daje. ne ñii nañ leen fekk ci nañ leen fekk dans leur logique. ok seeni loxo ne nañ dem. amul suñu liste yi ni ñu ko tëggee amul benn liste dans un dans un département boo xam ne bokkuñ ko wàllu. boo demee Kaolack benn Yewwi lay nekk benn wàllu. et dans tous les départements ce qu'on a fait c'est qu'est-ce que ça crée dans la coalition Yewwi non seulement coalition bi màggoon na nga indiwaat wàllu ak ni mu toll mais c'est des chances de non investiture. cette tension là organisation sociale lañ yor mën na am. Mhm. man li may jàpp mooy que dañoo war a xaar ba lundi. ba liste yi génn ba liste bi génn on fait les conclusions. Mm. parce que ñun parce que ku jàpp ne ñun dañoo am ñu immature. xam nga mm. loolu aussi yàpp nit ñi la. janoog yeew yi ak ñuñ toll. Mm. Khalifa Sall tout les expérience politique qu'il a Déthié Fall la rigueur Déthié Fall liggéey moom sax dafa métti. Mm. deux heures du matin quatre heures du matin da ngay liggéey ak Déthié Fall. tellement rigoureux. mais docteur nga baal ma xam naa ni cas bi yeggaguñ ah ci ci ñoom. Euh, ay da parce qu'il y a eu des frustrés. non bi donc si on euh, bon on peut l'appeler ainsi c'est de la frustration nga woowee ko après nu la neexee <laughs> parce que mécontentement daal wane ngeen ko xaw ma nag. ndax mécontentement ak frustration bokkul ay de conteste déjà mais je veux dire cas yi cas nañ ñu ci newul non liste et c'est un un parti de chez vous l'a posté en premier on ne peut pas douter amuñu la bonne information pour ne pas citer le nañ ñàkk am sax la ñoom ñoo ko siiwal non defal nag mun nañ sax ñàkk am la bonne information parce que si dans les dans les drafts ñu teg hmm. boo xoolee li ce qui ce qui ce n'est même ñu bind. Hmm. bind liste majoritaire titulaire majoritaire bindaat ci suuf titulaire majoritaire. cest à li ñu bind noonu ab defar ko mel ni comme benn bu jël defar rek pas du tout mais li may wax mooy que li ma bind. Hmm. mooy que le crime profit ak kii à qui yaa to yaa laaj. non le crime profite kii qui. yaa laaj mais yow nga gis ñu xoolal cat ñu def ay conférence de presse yuuxu et cetera parce que ñoom xam nañ ne Dakar c'est sans appel. yi rek daf leen di daf leen di defal affaire Yewwi Yewwi Wallu mais ñu laal suuf donc pour ñoom c'est le rêve alors donc walla de gagner Dakar et cetera mais non. non dañuy dañuy dañuy dañuy kii rek. ah ils ne sont pas l'auteur du crime ah non lu ko la wax. oui non à qui profite ah, la wax. ah oui mais ah, ah, en fait mais mais pourquoi en fait vous savez que le crime profite à quelqu'un. parce que parce que parce que mais qui a fait le crime. cette liste là la liste systématisée par l'état-major de Yewwi pour Dakar mais cette liste là. elle nous renseigne sur un certain nombre d'éléments elle nous renseigne sur le comportement du politique